maa ngi gërëm confrères yi nga xam ne teg nañ ma ma jiite coordination bi fii ci zone est alors que jaaruñu sax ci élection loolu marque de confiance la considération la dinaa def suma kemtalayal kàttan lu ma mën ak lu ma mënul ma fexe relever défi bi rus naa ëllëg ma toog fii fekk indiwuma fi bilan boo xam ne nit ñi danañu tàccu xam ni biñ ma koy jox yaakaar bi ñu amoon mat naa ko donc par conséquent di leen fàttali formation bi nga xam ne dafa bokk ci li tax jóg convention des jeunes reporters formation lu ma gëm la man maay ki nga xam ni dama bàyyi fi ma doon liggéeyee am contrat durée indéterminée nekk correspondant permanent bu ñu embauché ma ñàkk loolu ndax dama waroon dem formation donc formation dama ko gëm te boo defee sa formation am say lijaar sa doo ko rëccu donc par conséquent damay encouragé ñëpp ñi nga xam ne jotaguñ def formation nañ ko defi ñi nga xam ne ñu ngi ci nañ ko continuer pour ce qui des objectifs yi am fii au niveau de Tambacounda par rapport au siège suñu cyber dañ ko war a defaraat te mën na nekk dañu war a relever défi yi te mën na nekk yeneen région yi au Sénégal di yëngatu ñu yëngatuwuñu gàcce la ci ñun parce que ñoo ñooñu ci école yi ñu génnee ñun ci école yooyu la ñu génnee donc waruñu ne mën a traîner les pas ba nga xam ni dañ naan waa Tamba ñoo fare ci ginnaaw maa ngi ñaan comme ni ko ñëpp bëggee ñu tàllalante joxante loxo fexe lépp li nga xam mooy suñu objectif ñu relever ko ensemble avec l'appui de tout le monde